but by the content of their character. voilà comme je disais euh, tout à l'heure de femme une relation particulière Bon, xam amna ko diganté ak mouvement Il faut bi motax biñu yégué ni yëgee nii euh, événement bu mag bo xamné mi ngui koy waajal euh, tuddee ko la grande nuit du conte fii ci Sénégal édition 2024 mu nar a am inshallah le 26 biñu ñu jëm bien avant lolu sax amna na un programme yo xamné yokuna yokku ci notamment cet après-midi dinañ am une conférence de presse bo xamné ne dina ko may mu jakarlo ak presse bi kooku la ñuy woowee docteur

Euh, xëy nous euh, mën nañu Sénégal am am solo à travers ma voix peut-être que fi may sax ay euh, la ak mais ak ñaanal la fan parce que xam nañ ni sa que ji am solo lool ci société bu Sénégal déjà le ci réew Sénégal ak histoire bi mu andal yépp euh, Sénégal di dox ba jamono ji ñu en 2024 euh, ban gis-gis wala ban sentiment mo lay animé. waaw mais sentiment wu sant yàlla sant parce que yàlla la nga daf lay sàkkal suuf si ngay mm-hmm. mais boo juddoo ci suuf si question bi ngay a posé mooy lan laa defal yàlla ba fi. Mm-hmm. lan la defal yàlla ba ci suuf soo xam ne. Mm-hmm. Euh, la maam El Hadj Malick tëdd. defal yàlla ba ci suuf soo ne la Serigne Touba tëdd ñu bax ñoo ñu suuf si ñu tëdd lan laa defal yàlla ba suuf si nga xam ne Lat fi la juddoo Alburi fi la juddoo Maba Jaxu fii la nekkoon alage Omar Tall fii la yaatalee l'islam fii la cardinal ci àndum dëkk ñooñu nga xool tour yooyu nga ne man lan laa defal yàlla ba juddu fi mm-hmm. donc sentiment wu xam ne juddoowuma fu fu suuf gënam suufam mm-hmm. donc man gisuma ci àdduna bi fu nit mën a juddoo suuf su gën suuf si mm-hmm. man gisuma ko donc très fier d'être sénégalais non même pas fier parce que amul sans raison d'être fier je suis sénégalais <laughs> Wow. Poen final, di euh, mhm. mhm. mhm. ko fyer, di ko fok fok goun mè sa ak denne, man am damè yi santayallè ki nèk Senegalè. Desan. Donk santayallè chi, jidou chi, fouman touki ti adounè bi, fouman tahaw, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo nan Senegalè la, nyo ammou bet pou nyotek ti yo. Müzik bo mwongo oubetay. Album prezident 2010. Di ko awa di jwè le spektak sal de boz ar a Bruxelles, mang kibir sal mi. Mwansha Allah. Tonk, mang kibir sal mi. An 2010 bim kwen jwè. mangi ci bir salbi mhm. ci bir te bobu ñi ngi wara ubbi fi festival mondial des arts des arts effectivement. le morceau dédié à Senghor. Mhm. depuis 2010 mooy sama ouverture spectacle partout dans le monde. Ah. Awadi euh, samplé texte Senghor bim nan ce qui nous lie et au-delà de l'histoire effectivement kon amé amee de euh, moo xam ne doomi rew ma fu ñu dem. Mhm. am cër buñ fa am.

Ce qui nous lie mhm. est au-delà de l'histoire. Il est enraciné dans la préhistoire. Il tient à la géographie, à l'ethnie et partant à la culture. Li moy bazu, li moy organisation bi may def. Alors, professeur, euh, malgré euh, euh, li xew ci adina, xew ci Sénégal, xew fep, euh, euh, alhamdulillah qui se diggante avec sénégalais Avec la musique le hip hop etc pourquoi tu as décidé d'organiser une nuit Pour que ne da le ko le compte. Oui, li que ma def C'est que que 2019 dama dit tous les jeunes yi ont l'espoir espoir lañ. Mhm. ma tous les artistes africains. Mhm. ku ci tukkiwul ne moom bitim rew danaka da ngay defe ne réaliser wo dara. Mhm. ma dajale len fi 2019 ne on va faire la grande parole invite. Mhm. ñu wan nit ñi que ñun mën ñu reposer wu ci suñu patrimoine construire ay spectacle yu moderne. Mhm. wax ak nit ñi contribuer à l'éducation. éducation. ko defee après 2020 ma dajale len ma ne leen kenn ku ne bu démé réewam li ma koy jox euh, délai. moy un an pour me créer un événement ba paré am structure. bobu man tabax na Kër Leyti ba paré donc KPG dem monter la grande nuit du compte Burkina. nous mhm. dem accompagner ko. Mhm. petit tonton dem monter la grande nuit qu'on a créée nit ay jeunes africains nous leen pousse ñuy dem nga leen concurrencer comme nous maa leen pousse ñoom les grandes nuits naa les accompagner ba un programme installé wu. Mhm. donc si ba léegi may dem su ma mënul dem may yónni kenn ba ñu bataille ko ba créé am la grande nuit du compte, am aussi la maison de l'oralité et du patrimoine koumakan ma ne nag tey jotna 2019 ba 2024 ma wat len ci ben thème thème bi moy lan enfants d'Afrique unis pour son développement parce que tay da ngay dégg ñu naan AIS CEDEAO ñuy xëccio frontière yo xamné mi ngi joggé won conférence de Berlin mhm. c'est-à-dire que taxaw nga né man CEDEAO la bok, mhm. taxaw nga né AIS la bok, mhm. taxaw nga né euh, man Sénégal la bok, taxaw nga né Guinée la bok, da ngay reconnaître frontières yi conférence de Berlin sampoon effectivement est-ce que nous avons validé valider la conférence de Berlin. Mhm. ci ce ñuy mhm. débat culturel comme dégguma culturel yi les ténors yi nga que pays dañ leen fay des am mhm. ma indi Burkina c'est le roi des forgerons. KPG il vient d'être intronisé. c'est un naba. il est médaillé des Jeux de la francophonie. Nous, leen leen bu ngeen nous communauté africaine bi nekk fii mu Nous retrouvaille mu nekk mhm. ñu def suñu compte def un spectacle de parole wax ak nit ñi égayer leen mhm. mais passer le message d'une Afrique qui a besoin de son unité li Afrique soxla tay moy pas ay discours yi enflammé ñun xeexuñoo kenn l'Afrique ne se bat contre personne Afrique bu amé ko muy xeexal c'est ses propres démons te démons africains, yi bi ci jiitu moy doomu Afrique yi ñu bëgg tëj ci ben carte d'identité tëj leen ci ay frontières yo xamné ne tubaab ko teug ba pare bëgg man ma xeex benen africain au nom de ces frontières man duma ko nangu. d'accord accord léegi professeur euh, ci sénégalais bi nga xamanteni tay tey ma nga toog ci coin wala ma ngay jaay caafam wala ma nga këram di dégg so ma firilee baatu la nuit du compte lan nga may wax noo ma koy firilee. moy guddi gi ñu jagleel lépp. te lépp bu ko daan dégg fi ñun ci sénégalais lam daa bi ni lépp dañ ko daan jappé xeyna waxtaan buñu fent. waaw lépp. waxtaan la boo xam ne mag mi da koo tëgg waaye moo ko mag bu koy wax def naan léeboon boo déggee oon ci wolof mooy fekkewu ko mhm. moo ma mag mhm. lu la mag nag da koy jox cër mhm. dañ ne sama maam daana wax ne sama baay daane wax ne jot na tey ma ne léeboon ki koy tontu ne ko léppoon amul censure kon wuute nag ñu jàpp ni lu ñuy fent la mën na bañ a sax doon dëgg ah déedéet déedéet xam nga lépp du fen fiction la maanaam nettali la tënk nettali ay jaar-jaaru ay rabu àll. lu xewoon ngir wax ak nit ñi mën na bañ a xewoon. d'accord mën na bañ a xewoon. Mhm. mais xew waaye lim lay nettali. Mhm. ñaari nit ñu warante mas naa xew. Mhm. ñaari nit ñu sàccante mas naa xew. dëgg la ñaari nit ñu ñu ñu ñu ñu waxantewul dëgg mas naa xew. même boo ko fekkewul. même boo ko fekkewul. ñu jël nag nataal boobu. nettalee ko nettalin boo xam ne. dañ lay junj. maanaam lépp junj la dëgg la lay junj. loolu nag mooy li am solo. mooy nga xam ne guddi googu. liñu bëgg moy cosaan yi fi maam yi hmm. doon defar jikkoy nit ba du sacc doon ko pas ba du hmm. doon ko ba hmm. lan école bi ko formation wu xalé yi guddi gogu nak liñ ci Niger mi fi Guinée mi Côte d'Ivoire mi euh, Burkina mi ngi fi ñom ñëpp axé nañ ni moment bi Grand Théâtre retrouver retrouver toute la communauté def lu mat fukki penc ak juróom-benn ci biir cercle bi ci fukki bi penc yooyu dafay am région Sénégal bu ne am penc Afrique am fa penc waxi mag am fa penc Kocc Barma am fa penc. nit ñi ñëw ànd ak seen njaboot kenn ku ne reer ba ngay reer ñun ñoo la koy jox waaye du am kudd du am fourchette. Mm. te lekk ga ngay lekk. Mm-hmm. fii lañ ko bayee. Mm-hmm. lekk cosaan lay doon. Mm-hmm. ñu def ko nag ci mandarga boo xam ne restaurant bu gën a luxueux ci àdduna. day moderne dafay moderne. ñu boole le numérique boole le virtuel boole compte slam ba atelier bi ñuy def nii actuellement ay xale yu am 16 ans. Mm. maa ngi leen di former sur 3 4 jours xam nga pour lan. pour raconter les impôts et la fiscalité au Sénégalais. thème d'actualité. thème d'actualité parce que tey ku ne impôt nga tiit. dëgg la ñëpp tiit ndax impôt. dëgg la léegi ndax niñ koy waxee ak nit ñi di leen tiital mënuñu ko jaarale ci structure lépp ak salaam wax ko nit ñi ba mu leer ñu jël ay xale yu ndaw former leen pour wax nit ñi ne leen ki mën a wax am lu mu wax am lu am lu mu wax du jël tiktok am di saaga. kon niñ ko foogee du demee noonu parce que ñi ko ñenn ñi foogee mooy dañuy ñëw toog jàkkaarloog professeur dong mu ñuy wax. loola sax jar na ndax professeur day bàyyi domam waaw a <laughs> la. tok di wax ak yow. deug la waye li bëgg mhm. ñi nga formé mhm. nigérien bi ñew mhm. lañ ko formé Sénégal il y six ans. Oh. ñun ñoko formé te des démé de la francophonie mo gagné médaille d'argent. ren xalé bi nga mo dans le domaine du compte fess nak dañ ko formé pendant au moins six mois. Mhm. mais Mara bi champion Sénégal slap. Mhm. dañ ko former parce que li ma li veux bëgg nit ñi xam ko prétexte la pour nit ñi xam ne que mën nga ancré ci say valeur ba pare moderne ci sa démarche way Kals. Mhm. nga a ci doom ak sa jabar. dem tok ñuy wax lu sa jabar mëna dégg sa doom mëna dégg. yow mag nga mën ko dégg te amut saga wax ju que les jeunes couples yi nga bañu ne ba légui sëyee ñu léegi. Mhm. ñu génn guddi gogu kenn ku ne lek foñoo ki lek mbaxalu nar xamna naa sekkeen yeeg njaween yi ñu ngi may ré <laughs> waaw xam nga ñom ndongo ndongo na ma baal bu daara ji xamna naa buma paré mu woma <laughs> parce que ma ngi wax mais dañu bëgg valoriser les habits traditionnels. deug la valoriser valoriser les costumes traditionnels. amna kenn ku ma ne man bima déggé lolu sama xel ci lenn rek la dem moy cérémbou dina am bu ko bu ko bëggee ci mbuub na ñëw ndax loolu du fa ñak mais liñ ci bëgg moy valoriser euh, consommation traditionnelle uh-huh. mais nit ñi consommer des produits traditionnels uh-huh. de façon moderne uh-huh. xam nga tay nga ñëw ñu rendre hommage aussi euh, ñi nga xamné ne ñoo nekkoon dans l'écriture orale donc programme bi loolu lay doon c'est euh, regrouper les gens en une nuit permettre famille ñu génn xalé ak mag permettre ñi dégg wolof ak ñi dégg tubaab ñu dajé ci ben spectacle permettre aussi les africains de talent yi nga xamné ñi ngi fi lancer un message à toutes les autorités au nom de la communauté culturelle pour les wax ne nous refusons de valider la conférence de Berlin. Lool li ñu message bu mujj message bu mujj bi mm. frontière conférence de Berlin yi. Mm. nangu bi sama à l'élan de l'État du Sénégal bi nga nous ne nee dafa bëgg dox dans la sous-région d'accord alors professeur am na lu bëgg ñu dellu si touti euh, balaa ñoo yegg si waat ci événement bi muy euh, tur nit ñi sénégalais yi commencé min lool muy Kër Leyti waaw Kër Leyti mi ngi tudd la maison de l'oralité et du patrimoine maanaam kër gi nga xam ne lépp loo xam ne wax ju rafet la ak jikko ju rafet ak i valeur mhm. dañ ko fay jàngali xale lu ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy que suñ aada suñ cosaan bañ a réer mhm. mais que rappeur bi tey su fekkeete ne bëgg na comme ni dib di def reposer ay bitam ci aadam ak cosaanam mhm. te xamul fu mu koy gëstoo ñu ànd ak moom ba jàngal ko ko ki nga xam ne dafay def cinéma bu bëggee def film bëgg wax ak nit ñi wala bu dee école bi comme par exemple nous avons ko éducation nationale de laajee suñu nous jàngal goné yi ay valeur ak nous mag ñi ñun ñu mën leen est-ce que xam nga Kër dafa participer fortement à l'inscription du ceebu sur la liste représentative. Mhm. du patrimoine mondial. Aujourd'hui, mhm. l'État au état Sénégal mi ngi confié par la DPC ñu inscrire lu melne le Magal de Touba. Mhm. dans le patrimoine. donc ñun suñu liggéey loolu travail expertise la formation ak ak pédagogie donc centre le boo c'est gratuit donc ko peut ñëpp tabax ko te amuñu ci ndimbalu état. Mhm. amuñu ci ndimbalu bitim rew mhm. wutuñu ko ci won timit mhm. liñu ñu bëggoon mooy jël suñu ñak delloo ko. Sénégal la bëggoon laaj du tax ko ci. mais parce que bama koy def en 2009. dama coordonné ben projet bo xamné ci Afrique de l'Ouest la ak liñ tuddé Afrique centrale. bima paré ñu fayma parce que dañ doon liggéey di défar ay ouvrage didactiques Mamadou Diop bi gañu won 2012 ci la bokkoon. am na député boo xam ne tey mi ngi assemblée nationale sama étudiant yi la bokkoon. Mhm. mais xaalis boobu biñ ma ko fayee. dama ne xaalis bi loolu sa payeeru bopp la woon. maa ko moom. Mhm. mais dama ne Sénégal moo fay sama njàng. fay samay maître fay sama ñëpp lan laa mën na njukkalee Sénégal. ma ne kon naa defar benn espace boo xam ne sénégalais bu ñëw mën nga fa nekk. artiste bu jógee bitim réew mën nga fa dëkk. Mhm. mais artiste bu dëkk ci région yi. boo ñëwee bëgg a liggéey mën nga fa tëju un mois bind sa spectacle chercheur buy def sa thèse wala ngay def sa doctorat. man nga fa nek loolu moy keur Leyti actuellement amna lu mat juróom-ñetti xalé yu fa dëkk yo xamne bokku bokkuñu ak ñun ndey bokkuñu ak ñun bay mais bu ma woon dog moy lima bëgg la laajaat ci loolu moy ñaata temps la la coûté euh, ci tek ko ak ci ay copar xeyna bon construction bi jël na 2009 la ba 2012 ba 2012 mu paré ma ubbi ko 2013 bi ñu ma nommé directeur général Sorano ma arrêté activité yi parce que bobu bëgguma won ñu né damay jël xaalis Sorano diko fa def ba 2014 bima ma Sorano me reprendre donc le coût global buñ ko calculer coût global de construction bi ci moment bobu mi ngi avoisiné woon autour de 60 65 millions. loolu loolu ko par le professeur. wa mais wërsëgu ah, yalla la buy ñew xajoon na xéna ci ci gafa ga gi nga téye ko dé bi ma ko tabax tabaxaguma sama kër. est-ce que. bi may tabax kër lay tabaxaguma sama kër. Uh-huh. parce que dafa am benn moment nit ki li nga gëm diko dundu, dund li lay dundal. té fi mu résultat yi nga ci am amoo ci ben rëccu. ah maa ngi sant yàlla. am na xale yu fa fanaan tey yoo xam ne zéro faute lañ def dicté seen devoir yu passé am na xale yu fa dëkk yoo xam ne tey moyenne 17 la ñuy am. objectif bi yaa ngi koy commencé atteindre. atteindre nañ atteindre nañ ko yàgg na parce que bu ñu demee ba tey nga am lu mat ay 30 ou 40 séries mhm. radiophoniques mhm. yoo xam ne yaa ngi koy déglu te xamoo ko. Mhm. te yëpp fa lañ ko defee. nga dem ba ñu ne tey El les Lebon mi ngi Avignon actuellement. fa lañ ko réaliser fa lañ ko former fa lañ ko réaliser. Mhm. tourner ko bindu ko réaliser ko. Mhm. nga dem ba tey ñu ne la compte yi ñuy jàngalee à la radio scolaire bu Sénégal. Mhm. foofu lañ ko defee. ñu ne la Maysa Mara foofu lañ ko former nga nga ñu ne la tey jii nii tey jii nii fii may wax ak yow nii. am na xale yoo xam ne seen ndey ak seen baay dañ jël dénku ñu leen mais man maa ngi sant yàlla xam lu may sant yàlla. mooy que tey mën naa ne. ni ma sama doom sama taaw bu jigéen wax ne ma papa kër lay layti génnee ko ci son dono parce que boo dee sax ñun duñ ko doon. est-ce que. ko ci son dono la am na moomeel sénégalais yi moomal nañ ko seen. waaw kon man dama am wutoon dama doon wut lu ma mën a fayee senegal yàlla may na ma espace boobu tey xale yi fa dëkk bokkuma ak ñoom ndey bokkuma ak ñoom baay. Mhm. sama benn mbokk du fa fanaan. amna xalé yu fa nek tay ñu ngi leen recruter ay espace culturel fu mel ne Blaise Senghor foofu lañ métier ba nek ay régisseur en lumière ñi nek ay régisseur en son studio ba fa nek du studio audiovisuel ay millions yu bëri lañ ko jëndee tey mënuma la wax né caméra yi kër gi la fanaan ay xalé ñu ngi ko jël di jox parce que dañ ma d'accord euh, euh, professeur y a tellement de questions euh, xamna ni waxtu wi du ko parce que ngi dem ci conférence de presse bi dama bëgg digg dik ci ñaari yo xamné sénégalais yi vous nañ ko ci yow ak ñooñu benn bi sa ak artistes ah cofeel gi ngay wane sa diggante ak ñoom ci seen ay xew-xew ba ci seen ay réalisation beneen bi mooy sa diggante ak état du Sénégal waxuma gouvernement nag ak état du Sénégal wax nga ko léegi euh, nekkoon nga euh, ku ñu Sorano jamono jooju xëy na def parce que nee nga lii tax ko ndax da nga ragal ñu ne koppar yooyu nga defaree kër layti dèjà ñu njëkkee ci loolu sa diggante ak état. sama diggante ak état diggante sëriñ la ak taalibeem. Mhm. état daf ma defal lépp. Mhm. ma juddoo ci village bu mhm. tudd Kokki. Mhm. màggee Thiamène. sama jàng CP1. ba doctorat. école publique laa jaar. kon état boobu man dama ko ameel bor. bor bi mooy bu ma ko lor. bu ma ko tooñ. naa ko jox sama jot. te képp ku bokk ci état boobu. na nga jël sama jot ma jox la asaka. ba pare ma jël sama àdduna parce que waxoon naa ko fi RTS. bobu 96 la xaw 97 mané wala 98 ou 2000 mané man jël naa li dess sama aduna ma jox ko askan xale yi ma jox ko adiya xale yi Sénégal parce que dafa am mag ñu jëloon sen aduna jox ma ko addiya formé ma accompagné mhm. donc état wu Sénégal len rek laa séq ak mom moy mhm. liggéeyal ko te bañ ko togn encadrer ay domam former leen. kon du par parlo. dama par parlo kan maanaam ànd ak ñom ngir jappalé len ci sen ay xam nga de temps en temps euh, moi je des fois les questions yi nga xamné mom lay for euh, buñu né professeur bu ma nee sa digënt ak état mooy un moment comme ni nga ko waxee dénkoon nañ la benn banqaas euh, de temps en temps ñu né ah xeyna dafa nekk ci boor pour faciliter la relation des jeunes ou des artistes ak état. non man xam nga man bi may bi may nommé directeur général ministre bi mo nommé xawma ci spectacle la ma gissé def enquête jël sama dossier nommé ma. Sorano ca boobu. Abdou Aziz Mbaye yàlla ko yalla xaré àjjana. amin inauguration la ma gis. Mhm. poser ma question. Mhm. biñ may jël ko en tant que fonctionnaire may nekk conseil technique présidence. Mhm. tay Sénégalais yu bari xamuñu sax ne nekkoon na fofu deug la parce que yalla mo dogal na du top ci gannaaw kenn ku dul généralu murit wala imam. manam amul kenn ko xam man fess nga sama beut bamay top sa sa ginnaaw. nga may defloo mba nga may bayilo xam nga loolu tay suma ko defone di ngeen ma méré li ma gëm nag mooy. Mhm. état au Sénégal mën nga ko liggéeyal. Mhm. mais état bi ngay liggéeyal mën nga and ak nit ngeen di liggéeyal état bi. Mhm. bo démé ba gis ne kii liggéeyatul état bi yow nga continuer liggéeyal ak état bi. état du jëm non état du jëm état du jëm état du ay nit. donc maintenant sama diggante ak artiste je suis un artiste comme ñom depuis ma 15 ans j'écris des pièces de théâtre je joue je fais des contes. j'écris des livres. artiste nak yalla moma moo may Mangi ngi liggéey ak ñoom te kenn yëgu ko. Mhm. li may liggéey ak ñoom ñoom buñ ko waxul duma ko wax. moo tax nag ma bëgg. Mhm. que le 26 vraiment ñu wan nit ñi ce que veut dire un spectacle de conte. Mhm. waxuma la lépp toog di léebal say doom de mais spectacle bi lan la en son en lumière. loolu moom mooy mooy mooy li ma bëgg donc comme je te le dis maa ngi gërëm. Euh, ñi nga xam ne ñooy les conteurs yi jóge Burkina. muy KPG. Ni la Guinée muy Petit Tonton nous Niger muy Salifou. Mm. ñaar ñi la Côte d'Ivoire xam nga ñaar ñi kañ la leen la dina Sénégal. 2012. la formée, kenn ki ma accompagner ko ne ko bis bu joté ngén toll niveau bima soxla. Mhm. dina len indi Sénégal. 12 ans après 12 ans après la len di sogo indi Sénégal. Mhm. donc certainement avec l'accompagnement du ministère de la culture. Mhm. mais avec l'accompagnement aussi d'autres institutions mais ñima ma accompagner ce sont les artistes du centre culturel Blaise Senghor. on reçoit beaucoup de messages euh, mënuma la ko bañ a wax euh, ci page facebook bi euh, ñu ci bëri ay kër la ñuy def ñenn ñi ñi ngi bind Pape Babacar Sarr allah solo tout temps di déglu professeur très intéressant cette émission avec professeur on reçoit Elage Elousec, Elou Seck ah moom nee na mi ngi am euh, ci bi euh, un connaisseur vrai connaisseur euh, icône bu mag tonton Massamba Mon noonu sax na la merci beaucoup à bëri mon nom lire ñëpp Ousmane Sow ci page Facebook yi ku ci ne mi ngi def ay commentaires ngir rafetlu sa waxtaan bi ak ñun ndax ndono li ci wàllu compte wala ci histoire du Sénégal euh, de temps en temps bo défé recul un peu di xol ce qui se passe japp nga ni amna ay xalé vraiment euh yo xamné ndono li meun nañ ko maté ëlëk waaw waaw fi nek ni mom wax deug ne yalla mhm. euh ci corte bi ñor ni mhm. tay sénégal bo mo waxon mhm. euh 10 ou 15 festivals de contes ñu am ci aduna bi meuna genné 15 professionnels yoni len yu joggé fi mais ñom dañu discret xam nga tey. Mhm. mën naa la wax mën naa la wax benn secrétaire. benn compteur sénégalais bu mel ne Lamane Mbaye. Mhm. mën na fayeeku loo xam ne tey beneen artiste ci beneen domaine dina jouer quinze fois fayeeku ko. ah bon mooy waykat yi ñuy dégg. li ma la wax kay lu leer laa la wax lu leer laa la wax benn compteur sénégalais ci benn. événement professeur li boo ko waxoon xëy na nit du ko gëm. man Massamba Gueye maa ko wax du maa ngi ci biir. waaw direct directeur artistique di organiser di liggéey concert yi di liggéey dama ne ne benn conteur sénégalais ci benn événement ci ben structure mën na fayé ko lo xamné ne artiste ci beneen domaine dina liggéey plus de dix fois soko fayé ko. leer naa la métier la euh, bu mën fay je veux dire son nom wala kiko pas pas euh, ta fay mën day fay El Hadj Léboon deful lulul dul lépp deful leneen. Hmm? conteur yi ma gis man. Hmm? ñuy liggéey c'est un métier boko respecté ba mokal ko ba àgg ci beneen niveau bi do xey suba ba ngoon te liggéeyoo. mais ndax dafa laaj am njàng. si si si am njàng. en temps bobu kër bëggee nek professionnel dafa laaj jang motax ñun kep ku dugg Kër Leyti mëno fa def moins de 6 mois minimum da nga def 6 mois te accompagnement bi 2 ans la ñu lay soog a professeur luy différence entre njang ak gëstu. waaw gëstu moy bëgg xam mbir lu mu tekki. Mhm. waaye nag jàng mooy fexe xam nuñ koy defee. mën nga gëstu ba am ay léeb yu bari. Mhm am junni compte xam nga tey maa def. 24 ans may def émission compte radio Sénégal international. 24 ans tey boo ko calculer 52 semaines fois 24 ñaata léeb laa léeb. ci àdduna bi. yaa ngi junni ak nangam ak lu topp. Mhm. kon loolu da ngay gëstu pour am ko. Mhm. mais pour jàng lépp nag. Mhm. il faut nga jàng nooy xam nga tey mënoo lépp. ci àdduna bi yëpp. te xamoo lan mooy seen. la xamoo lan moy micro yi xamoo nature micro yi. Mhm. xamoo lan moy lan moy lan moy rapportu nit. ak mhm. ak public. Mhm. parce que mën nga ñëw ñu ne la label 5 minutes. man jógee naa fi dem Burkina xam nga li ma lay wax nga jógee fi dem Burkina ñu jël avion jox la dugal la business nga dem ci hôtel bu mag nga léeb ba pare ñu jox la loo xam ne yow miy jàngalekat xam nga ne sa salaire u un an la ñu fay la ko nga ñibbi si te vingt minutes nga léeb. ci 25 minutes ci 25 minutes. kon la may wax xale yi mooy képp ku ko ci jël pour def ko métier. te nangoo dugg ci àll bi dem collecter lait bi nangoo formé wu nangu ko def métier mën nga ci tedd mën nga ci teral say mbokk jowlu nag message la boo xam ne baax na tamit ñu koy wax xale yi ne ku ko choisir mën nga ko def métier. macha macha allah alors professeur euh, euh, dama ci am ay kàddu seede ci waxtaan wi euh, mu jóge ci koo xam ne nag il n'est pas je veux dire ay waxam moom ñun dañ koy dañ koy faral di déglu. Euh, bi ma commencé di waxtaanee sànq ba léegi mi ngi ciy seede mu ñu koy wax oustaz Mor Thiam. macha allah euh, jóge ci diine. mais waxtaan wi non seulement dafa am solo am luñ ciy jàng ba fi mu ne nii boo ko doon tëkkaleeg li nga xam ne moom lañ ñu wax ci alxuraan daanaka duñ sore wala benn la ñuy doon. Euh, muy prof muy muy oustaz Mor Thiam moom nag sama waay. sama frère voilà moom ni muy dégloo hip hop bi noonu lay ni muy gëstu alxuraan bi de temps en temps bu gisee dara ci hip hop bi loolu la may wax oustaz Mor maa ngi lay nuyu. Kals eh, dama siif maa ngi nuyu professeur maa ngi lay fay euh, yaa ngi déglu di apprécier waxtaan wi sànq ba léegi. Euh, euh, ci xew-xew bi mu dëgmal mais daanaka njariñ rek lañ ciy dégg oustaz. waaw xam nga xam nga li may faral di wax damay wax ma Massamba dañ koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ko te wéral ko. wallaahi. xam nga li gën am solo mooy nit ku xam réewam bëgg réewam di liggéey pour réew maam daraam du ma rëcc. wallaahi. dama koy suivre bi ngeen commencé ci su sànq bi léegi maa ngi maa ngi kii dama dem ba mënu ma ko muñ ma ma ma envoyé texte rek ne yàlla na ko fi yàlla yàgg. wallaahi dëgg la parce que loolu loolu Sénégal lii la soxla. dëgg la. nit ko am dignité xam li mu bëgg xam fi mu nekk. bëri valeur lool sax wallaahi wallaahi. yal na ko yàlla lafal ca amiin yaa oustaz programme bi yal na yal na yal na ci yeneen toog amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi xam nga li mu wax defar loo xamante ni bii xaaroo ci weccit defar lu nga xamante ni bii loolu nga jëkk a jëmmal fi ngay fanaan loolu loolu mooy Sénégal wallaay mooy Sénégal dëgg la de waaw loolu mooy Sénégal loolu la ñuy mooy jullit mooy ak taalibe mooy ak ñite mooy bëgg sa réew fi may wax ni Sénégal Mor Thiam mooy wax mais xol bi mooy wax wallaay xam nañ ko ngay ñaanal yàlla yàlla jërëjëf te bari ñu mel ni moom jërëjëf jërëjëf yaw Saas kontaan nañ bu baax euh, euh, ci kàddu seede yooyu euh, yaw Saas bon professeur loo ci loo ci loo ci commentaire man mënu ma ko fay parce que Oustaz Mor Thiam def naa ne ñaan gi may ñaan dëgg la bis bu ne bu ma julee fajar ba noppi ndeysaan muy ay limu Fatiha uh-huh. bu ay basmalat waaw ci moom laa ko jàngee ci rajo bi dëgg la kon nit koo xam ne lu ëpp fukki at. Mhm. yaa ngi jël xam-xamam. di ko jariñoo ngir aar sa bopp. Mhm. moom mënu ko mënu ko fay mënu ma fay njabootam. Mhm. ndax yiw gu mu am. mais lii daf may gën a rek dëggal li ma xalaatoon. mooy que nit mën nga nekk ci domaine di ci liggéey. nga sàmm sa ngor. sàmm sa dignité ba. Euh, li ma waxoon waa Al Wafa. Mhm. tey man maa ngi liggéey ci lépp. Mhm. di ci jéem a yee xale yi. Mhm. di ci jéem a partager ay valeurs. mais terewul tey dinañ ma invité ci biir juma. ma def conférence ci aada. ak cosaan. Euh, xam nga bu ma demee ba jamaa Ibadu Rahman. ci weeru koor gi. ñu mën ma woo plusieurs fois. ma waxtaan ak ñoom ci suñu aada ak suñu cosaan. Mhm. loolu day tontu li nga indi woon léegi gëstu moo koy indi. Mhm. mais loolu nga gëstu ba noppi. Mhm. li ma bëgg mooy gone yi. ñu ku am lu mu wax. ku bëgg livre. ku bëgg def cinéma. ku bëgg def dara. amna fi lu baax. wane. amna fi lu bon wane nuñ koy la da ngay gëstu ba xam sa bopp. xam sa avancer. donc soirée yi ñuy organiser. liñ ci jublu sénégalais mën nañ génn ci lu niroog ñoom. Mhm. ñëw fekk ñu sol seeni mbubb. Mhm. di wax seen i wax. Mhm. di mu méngoog jamono. ñuy gis ay écran di gis ay vidéo waaye lépp nag Afrique rek lay wane. lay wane ku xeeb sa bopp ku la xeeb tooñu la daf laa dimbale daf laa ndawtal ci xeeb gi nga xeeb sa bopp. est moo tax dafa jot ñu bàyyi. xeeb sa bopp ku xeeb sa bopp. ku la xeeb tooñu la. daf laa dimbale ndax daf laa jox ndawtal ci xeeb bi nga xeeb sa bopp. kese mu jeex alors professeur euh, euh, fi ma bëgg ñu les waxtaan wi mooy dellu si ci bis bi ah euh, dellu si ci bis bi am na ay ñetti question yu ma jot ci public bi mooy accès bi naka la de nar a demee ndax euh, l' accès est ouvert à tout le mone wala nan la ñu mën a def ba fekkee ji ko euh, ci euh, bés boobule xam nañ ni ci grand théâtre lañ koy defee mais ci programme bi dafa mel ni am na yeneen yu ñu ci toftal bokk na ci tey conférence de presse bi ak yeneen balaa ñoo yegg le 26. waaw ci lu gàttal daal comme ñi ngi may xaar foofu. Mhm. tey jii ubbi nañ ak forum civil. Mhm. benn atelier pour former xale yi. Mhm. li ñu leen di former mooy lan mooy fiscalité lan mooy impôt ak nan nga ko mën a waxee nit ñi ba ñu ba mu leer ci ñoom. muy atelier bo xam dañ leen di jàngal art oratoire mais tegg ko ci fiscalité ba le 25 mais ci biir atelier bobu tamit bu ñu fa joggé dañuy euh, organiser guddi gogu guddi gogu lima wax euh, comme dañu fekk ben, restaurateur bo xam ñu ko depuis presque 20 ans 25 ans mi ngi ci milieu bi nek ak acteurs culturels yi mais mësul am occasion dans une grande soirée ñu jël ko ñu ne ko kay nga nga nga may occasion. Les plat traditionnel yi ngay togg ci semaine bi sénégalais ku ñëw mën a jënd plam reeram ànd ak doomam su spectacle bi ñu may ko donc loolu que nit ñi suñ bëggee accéder dañuy réserver parce que bu ñu réserver wul moom du xam ñaata nit la war a toggal dañuy réserver au 77 199 09 06. ñu le numéro bi. 77 199 09 46. 46 képp ku bëgg faut ñëw foofu ngay réserver. Mm. mais mënuñu passé

ay rendez-vous ponctuel yuy am à Douta Sec, à Blaise Senghor ñi ngi négocier ak ñoom. Mhm. pour ñu may famille yi chaque mois au moins. Mhm. ñu mën a vivre loolu ak seen doom yi. incha allah xam nga lan laa sonn kal. yéen ñii <laughs> waaw di soog a takk jabar ak am doom yi maa guddi munuma guddi gu jot ngeen woo ma téléphone ne ma yónnee ma benn léeb bu ma léebal sama doom yi loolu laa loolu laa dëgg léegi professeur euh, may gërëm waa l'observateur ñoom it ñëw nañ fekkee ji euh, waxtaan bi euh, l'obs ñu ngi leen di xaar yéen ca kanam conférence de presse bi professeur maa ngi keneen koo xam ne moom it waxtaan wi bëri nag ñu ci bëgg a bokk je reçois tellement de messages mais maa ngi ak ndongo di du daara ji ndongo maa ngi lay ziar bu baax ndongo reer yi reer <laughs> a bokk alors ndongo waaw waaw gis nga de ndongo am ku mel ni ah. professeur ci waxtaan je pense que bu doon deux heures de temps ku ne da ciy bëgg a bokk euh, organiser la nuit du conte je pense que lu normal la ci jëmm ju mel ni moom waaw xam nga c'est vrai ñun ci musique urbaine la ñuy yëngu mhm. mais li may fàttali nit ñi rek mooy que comme li ñuy wax nit booy booy yëngu ci wàllum mbind wala wàññi wàllum gëstu. Mhm. wala ci ñun ci li ñuy kii dafa am toujours loo xam ne mooy reen bi. Mhm. te reen bi mooy ñoom mooy mooy mooy docteur Massamba li muy def. ci mhm. wàllum compte. donc seen événement boobu nekk loo xam ne aussi pour man c'est incontournable. pour man ñun li fi ñuy fi ñuy rootee. parce que ñu bëri nañ may faral wax woy texte nii man leen ñun am nañ ay références locales. te références locales yi weesuwul. Mm-hmm. bu ñu tuddee ku melni Cheikh Moussa Ka mm-hmm. wala buñu buñu tuddé ku melni Cheikh Anta Diop tamit sama xel day demat toujours ci professeur Massamba mm-hmm. donc may woowaat ndaw ñi di leen ñaaxaat ñu xamné que am nañu loo xam ne euh, maanaam jaruñu jarul ñu jéggaan donc euh, comme les professeurs di faral di wax rek léeg-léeg mu yu am yu ma yónnee am na am na phrase bu ma yónnee naan ma buñ la buñ la wóoloo defal loo mën. Hmm. bañ a tas yaakaar. moom xam na li may wax. Hmm, hmm, donc gannaaw nag nekk na bis boo xam ne bis bu am solo la ci wàllum compte. donc maa ngi invité waat ndaw ñi invité waat waa Sénégal yëpp. ñu bañ a tardé bis boobu. incha allah mais mais man dégg naa ci suuf nag ñu ne ma yow daa mel ni reer yee la ci yitteel. <laughs> non man xam nga xam nga man fi ne nii. xam nga am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi ci tam xarit. waaw gis nga géen boobu toog. <laughs> waaw xarit bi paase na. waaw waaye ba léegi mu ngi am na ñoo xam ne xam nga muusal ñu ngi koy dund ba léegi. tam waaw waaw waaw <laughs> mais yow yow ndongo ndongo ndongo yow ndongo yow sama doom bu jigéen moo la jàpp Ziguinchor li nga def lépp yëg naa ko. sama xarit Mortala Gueye rek parce que xam naa ni ñoom ñaar. sama jërbaat eh, mais moom sama jërbaat la moom. jërëjëf ndongo ñu ngi lay gërëm bu baax ah, ñu ngi lay gërëm bu baax. merci beaucoup ci disponibilité bi. Euh, euh, professeur euh, Sénégal dafay neex de temps en temps booy def dara gis ay nit yu mel nii di ko reconnaître. waaw waaw ndongo moom dëgg na hmm. yàlla dafa nekk bindkat nekk xale bu hmm. yaru nekk mag mu yaru sax parce que léegi dootu ko nekk kenn mais nekk koo xam ne tamit bu reconnaître Euh, lin nit ñi di def ak lucidité lucidité bu mu am dafay gën a encourager pour xale yi gën a dégg message am. Mhm. Euh, je pense que fu mu nekk nii. Mhm. am na liggéey yoo xam ne dëgmal nañ ko. Mhm. mi ngi tudd sama sama jarbaat Moxtaala Gueye ca Louga euh, maa ngi koy nuyu di nuyu képp koo xam ne xam nga ne da nga war a téye suñu ndono pour nga jox ko say doom jox ko say sët donc loolu moom mooy wax ji. Mhm. je suis très très satisfait dafa am ko ma wax sax ne ma ndongo ma ne ko ndongo. moom xam na ne bu nekkee Sénégal. amul fitu. moom nuyu di compte mu bañ a ñëw moom mm. amul fit bi. ndeysaan te su ñëwee it xam na ne du ñëw seetaan. ndeysaan mais professeur. wax dëgg yàlla damaa bëggul xëccoog presse bi xaar. ña ngay xaar mais je reçois tellement de messages et d' appels am naa beneen surprise euh, euh, moom euh, bokkoon na ci ñi ñu denkoon Grand Théâtre National de Dakar moom daf ma woo ma mais Kals dama bëgg bokk ci waxtaan bi mooy surprise yi maa ngi lay nuyu DG. waaw maa ngi lay fay bu baax Kals. Euh, di nuyu docteur euh, Massamba Gueye. waaw nga xam ne dafa bokk ñoo xam ne dañ ma encadré biir Grand Théâtre. nekkoon si membre conseil d'administration bi. ndeysaan di ko xam ne lépp lu muy wax lépp lu muy jëfee cosaan ak aada la. wallaay dëgg la. Euh, di ko waxee si xam-xam di ñu jàngal via ci viatique boo xam ne moom chaque vendredi mu jagleen loo xam ne moom. Mm-hmm. ku si sukkandiku rek doo réer. ndeysaan kon nuyu du compte bi suñu nuyu ñun ñëpp la. dëgg la. Euh, man personnellement dinaa mobiliser sama njaboot. incha ñëw vraiment assister si. Euh, parce que xam naa ni donc dinaa si euh, jàngee lu bëri. waaye itam ku fa dina fa gis cosaan dina fa gis aar. di de remercier vraiment c'est encadrement bu ma defal. jërëjëf si tete yi mais aussi donc vraiment à chaque fois su waree suñu waré euh, wax deug dañuy wax deug suñu waré donc war euh, orienté orienté ñu. jërëjëf ci ko diko ci di ko merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ mais merci beaucoup yow tamit jaar jaar bu rafet. ah hein, jaar jaar bu rafet bu sénégalais yëpp di di di di di di euh, kontaane merci beaucoup professeur affiche bima ma leen di tegal noonu ci écran bi pour ñi nga xamné ñi ngi ñuy sétane téléspectateurs yi moy la grande nuit du compte le 26 nag ci lañ lañ leen di xaar euh, foofu ca euh, théâtre euh, foofu ca grand théâtre bu Doudou Ndiaye Coumba Rose wat leen ni réserver leen dès maintenant bu fekkee bëgg ngeen ko teewee parce que les places sont tellement mais tellement limitées Inshallah, ci at bi comme ni ko professeur maa ngi jot sa yóbbante ci monsieur le maire Bamba Fall bu Médina moom mi ma doon woo léegi voilà maa ngi jot yóbbanteem également ci yow nee na mi ngi lay nuyu professeur bég lool ci li nga xamante ni moom nga teg ci événement bi ñu jëm donc Bamba mi ngi insister di ma yónneewaat message il est formidable le grand professeur Massamba message sax lama yone d'ailleurs donc nee ma yób ma jox la yóbbante bobu euh, yan cadeau ngay tejé professeur cadre dal moy les jeunes du Sénégal. Mhm. que ne ñun ñu yor mhm. dañ ñu ko jox ñu ko. Mhm. ñun dañ ko ñu jox ko. que ñu ñew ñu transmettre. bu ñu tourner le dos à leur patrimoine. une civilisation d'emprunt. te ko Grand Théâtre. bu di pour lui, le DG sortant ak DG fa Mm-hmm. dem ci donc je surtout la gëna adressé mm-hmm. ils vont voir des jeunes comme mm-hmm. nous les des des jeunes de rien du tout. des jeunes filles. des professionnels porter le patrimoine. Mon message, c'est un message de paix pour le Sénégal, un message d'unité, un message d'encouragement, mais surtout de félicitations pour Riel One. parce que euh, Real One. jërëjëf da ngeen tëddee njaaxaanaay. Mhm. mun yéen ñëpp ngeen di invité. Mhm. sujet yëpp ngeen di wax. jërëjëf événement yëpp ngeen di def. jërëjëf donc Kals yow xam nga man. xam naa yàlla xam na. man dag maa tette dag maa gunge dans les détails. <laughs> mais professeur. Euh, euh, yóbbante ba tey ah, professeur maa ngi jot message wu u Maodo Malick Mbaye Bah, ah, ah euh, bu euh, euh, di président Jima. Jima mooy voilà di dox ci wàllu jàmm rek lay dox mi ngi muy professeur ma Maodo Malick Mbaye di nit ku bax mi ngi may mi ngi may yóbbu yobante message ne ma nuyul ma professeur. Pouso la ko tuddee Pouso. waaw Pouso Gougne mom day ñëw rek. waaw yalla nako yalla fay. mom professeur moom nit ku la sax on va travailler ensemble. waaw dans le cadre de la paix sociale. Mhm. Inshallah. waaw mom jàmm rek ko yité keur lay té ak Jima mom di nañ ci liggéey. inshallah mais Maodo Malick le maire Bamba Fall. Mhm. ñoom ñëpp. Mhm. Euh, man li ma leen di wax. Mhm. mooy que yàlla bu la jiitalee da lay nattu. Mhm. Euh, te lim lay nattoo. mooy lu ne ngay njabootee. ku njabootee lu ne nag. loo dàq yaa ko moom. wallaay dëgg la waaw kon ñun li ñu war. mooy dajale. réew mi ñëpp mënuñoo far. jërëjëf mais am na war a far. jërëjëf ñun nag bu ñëpp faree. Uh-huh. waaw bu àtte jotee kuy àtte. <laughs> sama sama sama internautes yi ñoom ñi ngi commentaire nee nañ émission bi mooy meilleure émission bi ma def ci at bi. maa <laughs> professeur yow lenn rek lañ lay ñaanal ah say doom nag ñoo la koy ñaanal ak say rak mooy gudd fan kese yàlla na la suñu borom may gudd fan ak wér ndax sa nekk fi am na njëriñ ci ñun donc ñu ngi lay gërëm bu baax merci jërëjëf merci beaucoup alors mi ngi noonu professeur Massamba moo nekkoon suñu gan rendez-vous tout à l'heure euh, ca grand théâtre nag ci conférence de presse bi nga xam ne euh, moom la ñu nar a def je peux pas lire tous les messages euh, c'est tellement nombreux ba mënumaa liir message yëpp maa ngi leen di jéggalu xam naa professeur ni may def rek mooy deuxième partie bi ah su ma ñëwee ci deuxième partie bi jéem a nag message yi yi nga xam ne jaar na fi euh, euh, professeur euh, rendez-vous inchallah le 26 le professeur Massamba